ba nga xam ni jóg na nee na lay parce lay bëgg-bëggam mooy topp yàlla ci lépp loo xam ni xeet topp la liggéey yonent bi xeetu liggéey bu mu bëgg loolee itam fekk na fii mu nekk ci mu nekk ci teew mi lam ci bëgg boroom xamal ko ni ko day ah li nga bëgg de la koy may eh, wéetaay lay doon woo xam ne bi koy da koy am boo xam ne kenn doo doo doo ko bokk kenn danaa la boole nag ak ñoo xam ne nii du ngeen tàggoo muy muy muy sama ñooñ muy ahlu badrin mais ba mu ne cëpp mu ngi dem tiis na lool nit ñi waaye fekk na ak xéwal la xéwal la buñ ko war a defal ndax nee na mboolem lawliya yi ñi nga xam ne jiitu ku ci ne dafa am fu bëgg ak ak luñ ko luñ ko yen am nu ñoo xam ne ñi lañ leen yen attanuñu ko moom nag mu ñaan ci boroomam lu mu ko teg mu attan ko loolee mu dal ko wax ko kon nag maa ah, la jaarale foo xam ne fii boo fa jaaree li nga bëgg di ko am te di nga am sama ndimbal itam daal koy booleeg ñooñu ba mu ne cëpp di dem ñëpp jaaxle lool ndax lëndëm gi ak jaaxle gi mun de mu xamal ko ne ko du dara da da ngay jël loo xam ne lii rek loolu rek la ko mën a may loolu mooy sababu dem ci géej gi ba nga xam ne ni mi ngi mu ngi dem itam fu mu ko jaarale fépp metti na lool waaye yëgu ko ndax jox na ko xol boo xam ne bii dara dara mënu ca tàbbi lum mu ci tàbbilut loolee yëg na ko hmm. loolee la ci jëkk na ko mooy daal di dem ci ci géej gi ba mu ne képp nag daal koy booleeg ñooñu fu mu toll ñu ñoo ñu ak moom de hmm. ah, ba mu ko defee fu ne jaarale nañ ko fa fitna ji ne teg nañ ko ko waaye lépp yëgu ko sax mel na ni yëgu ko ndax xam na ni yàlla lépp moo ko ci ab dogalam la te dafa jaaxal ko mais loolee moom muñ ko mais nag ba ko defee mu ne mu xamal babaam ne ko ah moom fi ñu jaar ak man fépp jaar nañu moom fu bëree bëri waaye nag man fu ñu man baal na leen àq topp ma leen dara topp ma leen dara ndax xam naa ni lu xew yaa ko xewal te man loo xam ne def nga ko rek mooy mooy sama bànneex loolu ba mu amee ñu dal ko yóbbu buñ ko yóbboo defanteeg moom defanteeg moom defanteeg moom bare bare bare yëpp mu xamal leen ni leen loolu kat bu leen defee mu xamal mu xamal borom ni ko